mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di sant yàlla bu baax di am mbégte teewaat bi ci ndimbalu sunu borom ak kattanam ci solution info TV ak groupe solution yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu Sanjogu El Hadj juufa Diouf son yi bu topp Ablaye Aïcha maa jigéen Assane ah ñoom Ousmane ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax. di ziar ñëpp nag euh, di am mbégte di sant yàlla ci teewaay bi comme ni koy defee saa su ne tey jii ñu fas na waxtaane ay ponk ponk yi bi ci jiitu bokk na ci taskatu xabaar yu ñu bàyyi ñu koy rafetlu Pape njaay liberté provisoire sëñ Saliou Guèye mais aussi ñu bañ a fàtte Mati Sarr parce que damay gis si mbootaay taskatu xabaar yi nanguwul wax ci moom. pourtant dañ ko jàpp ñu ne amul carte presse mais liggéey taskatu xabaar loonu def te am na ci rédaction yu mu jot a liggéey ci réew mi naam ci Facebook bi ak réseaux sociaux yi la gënoon a active mais kooku tamit bu nekkee ci loxo yoon ni ni taxawoo Pape Ndiaye taxawoo ko Walfadjri pour mu tijji taxawoo ko sëñ Saliou Guèye noonu la ko war a taxawoo mais aussi taxawoo ko Cheikh Bara Ndiaye pour euh, plusieurs raisons parce que benn ci njaboot gi la bokk te bari na ci ñoo xam ne ci njaboot gi bu mësaan a am jafe-jafe xat-xat ba ci Serigne Saliou Guèye musul te tuddul Serigne Saliou géey moom Cheikh Bara Ndiaye musul te tuddul Pape njaay pour mu génn tey jii xeexu Walfadjri bi bu ko fekkee woon day taxaw ndaxte amul manifestation bu mu mës a woote ci sanction bu ñu teg journaliste wala ñu tes ko ab euh, maison de presse te jugul wax ci ba ci Sen TV bi ñu ko fi tëjee Cheikh Bara da cee taxaw ci njaboot gi la bokk doon ci jouer bu am solo mais aussi doon ab porteur de voix dossier am nag duñ ci dikk parce que bu nekkee ci instruction loxo juge li ñuy def rek mooy ñaan ñu bàyyi ko ak nun ko mënee bàyyi nañ ko bàyyi mu ñibbi ca njabootam benn pour wér gi yaramam benn kilifa la beneen bi ci topp mooy am na garanti boo xam ne mooy wane ni heure bu nga ko soxlaa mi ngi ci réew mi bu sañoon nag ñu seetal ko ba mu set wicc ndaxte ñun nag ki ñu xam ku ñu xamul mënuñoo wax lu ñu gëm ci moom ndaxte ñun ñoo la ko gën a xam man bu ma la gënee xam seex baara yow nga ñëw di ma wax ci Cheikh baara loo xam ne xaw ma ko woon man li ma xam ci Cheikh Bara rek laay gëm ba gis leneen loolu daf ñuy rafet njor ci moom ginnaaw liberté provisoire bi ñu dugal ñu jàpp ni fekki fan mën na génn comme ni ko Pam Ndiaye defee ak sëñ Saliou ñaanal ñëpp ñu génn. léegi nag mbiri Cheikh Baara lu tax ñu ci indi gindi ak leeral mooy daa am ñu ci dégg mooy li jëm ci mooy financer terrorisme ak xale yi doon yàq lii ak lee mais daf ci am benn boo xam ne man mënuma ko gëm mooy ñu ne Touba la fa xewoon ak lan fa jote yàq Cheikh Baara Touba la dëkk bu ñu doon dàq nit ñi Ndakaar ñu ñibbi Touba lay fanaani tey jii bu ko safaan daloon Touba lañ koy denc yàlla na yéex ay waajuram fa la ñu ne maanaam moom doomu Touba la tekki bokk ci askanu Touba ci daaru Assane Ndiaye doon kilifa doon cheikh màggee ci keppaaru sëñ Sidi Mokhtar Mbacke di xalif général des murit di doom ci soxna May Mbacke bu sëñ Sidi Mokhtar Mbacke kon kooku. du ko tuuti ca tubaa kon taxawu ko day am solo waaye bu ñu déggee ay kàddu ñu ne la xewoon ca tubaa xale yi doon manifester Cheikh Bara loxoom da cee laa loolu mën ñu ko gëm ñu dem ba tudd ab këru ministre ministre boobu ñuy tudd këram te mu tudd sant njaay mën naa waat fi mu toog ni ku miinanteeg Cheikh Bara ku xam Cheikh Bara la ndax seqoon nañ mbiri ñaan ak jàppalante te bokk na ci ñi Cheikh Bara gën a miin ci nguur gi. bi Cheikh Bara di jàmpanteeg moom nekkul ministre nekkul dara moom ak beneen ministre boo xam ne ñu ngi ci nguur gi sant ba Cheikh Bara jëflanteeg ñoom ci wàllu ñaan parce que sëriñ la parce que dama ko daan wax dama ko daan wax bu dee ci wàllu politique sañ nga far fu la neex mais ab sëriñ bu dee nit day ñëw di ñaan lu ci yow bul xool APR la bokk wala Pastef ndax da ngay liggéey liggéey xamul loolu beneen bi ci topp mooy ab sëriñ bu dee nit day ñëw di faju ci yow ab docteur warul xàmmee fii kii fu mu far ak fu moo tax bu weesoo politique bi ak taxawaay bi mu doon am ci réew mi bari na xarit ci opposition mais bari na xarit ci pouvoir te li mu ci xam bari na kon bu nee ñenn ci pouvaar bi moom dafa bokkoon ci ñi leen doon yàqal buñ ko waxee woon ndakaaru sax sa xel ñaaw mais biir Touba gëm naa ni lay yàqu mënul jóge ci loxo Cheikh baara parce que nag bari na ki ñoo xam ne loolu la ñuy gëmal kilifa yi ca Touba xam ne nee nan kilifa yi dem nañ wax ak ñoom looloo tax bi waa Walfadjri demee Moustapha Diop wax sëñ bi na ko xamewuma ko noonu kon lan lañ ko xamooloon balaa loolu looloo tax loolu ñuy wax ci Cheikh Bara ca Touba amul wala bu amee dina ma jaaxal ndax man mii mënuma ko gëm beneen bi ci topp mooy li jëm ci taxawaay bi mu am parce que ñu bari ca Touba dama lay jox benn exemple dafa am ñoo xam ne dañuy politique ca tubaa bokk ci nguur gi jàpp ni ñoom bu mënul am dara ca tubaa Cheikh Baara moo tax tele bi muy toog ak taxawaay bi mu am. am na ñu gëm loolu te ñoom ay autorité lañ nekk ci nguur gi doon ay kilifa gëm ni bu mënul gañe tubaa dara rek te tubaa Touba nguur yàgg na kaa ñàkk nguur Macky Sall kañ la gañe tubaa avant Cheikh Bara di toog di chronique ci ñaari at la yam mars 2021 la Cheikh Bara commencé di toog fii di wax ci politique mais ñoom yàgg nañ ñàkk élection tubaa te boobu Cheikh Baara waxul kon tey jii seen ñàkk am dara Touba bu ñu ko bëggee jiñ Cheikh Baara ba tax tey jii ñu koy woo ci yoo xam ne kenn xamul lu mu doon loolu ñun ñi mënuñu ko gëm te ëpp ñu ñu xel kon Touba danoo war a taxawu Cheikh Baara Ndiaye ñaan mu génn delluwaat seen njabootam ndaxte heure bu mësaan na nuyoo nuyoo ba li ëpp ci nuyoo bi Touba la koy jagleel kon da ko war a taxawu jàppale ko te lan leen gëmal naan Cheikh Baara am na benn wax bu ma dégg tamit dama ko dégg. mooy mitingu Mbàkke bi magi Pastef yi bi ñu demee Touba kër Cheikh Bara Ndiaye lan daloon mais kër Cheikh Bara Ndiaye boo fa demee màggal Daaru Assane wala màggal tubaa mais ku ne fay dal ñu ne meeting ba fa amoon coow la fa am mooy manifestation bi nu daggee woon wal fajri ñu ne dalal gi mu leen dalal moo taxoon Touba yëngu parce que moom moo leen dalal ci këram ay magi Pastef kon kay bu dee magi Pastef ñu yëngal tubaa nañ jam jàpp magi Pastef yi ay mag magi Pastef man yi ma xam paa yoo xam ne ku ci ne mu ngi yor yat xanaa nag bu ñu jógee Dakaaru dem ci ab bërëb fekk fa ku mel ni Cheikh Bara Ndiaye ak ku xam Cheikh Bara xam ne këram gi sax nekk ci Tëngéej ku neen la fay dalal mbana la fay teg nit ñi di ko dundee nit ñi taxaw ñu naan moo leen dalaloon Touba meeting ba amoon Touba ak magi Pastef yi mais ku woo ay kilifa ba ñëw kay jox leen ñu lekk ñu naan boo amee sa xaalis jox leen paas man mi sax bu ma dëkkoon Touba tey bu ay kilifa ñëwee ma dalal loolu mooy baax ca Touba mooy bernde bernde mooy mën gan mooy fonk nit ak fu mën a jugee loolu baax la ca Touba te Cheikh Bara nitu Touba la kon yooyu ñu indi teg ko bëgg di ko chargé yooyu nañ ci bàyyi xel te xam ne wax taxul biir fees des fois il faut que ñu xa xam ne ay boromi xel lañuy waxal xam nañ fu lañ jëm kon yooyu il faut que tamit ñu ciy bàyyi xel mais aussi tamit bañ a politiquer lépp parce que bu dee dafa wax. Cheikh Bara mars 2021 ba léegi mi ngi wax kon Cheikh Bara bu doon ci wax la nga ko war a jàppee jàppee nañ ko bu yàgg loolu tax ñuy ñaan ñu bàyyi ko mu ñibbi dellu siwaat ci njabootam parce que aussi daf ci am loo xam ne kenn mënul parce que li xew ci fan yi weesu ci weeru juin mais boo ko bëggee jël wékk ko ci benn Cheikh Bara Ndiaye ba tax ay kilifa jug bëgg ko jaxaseeg waa tubaa loolu mënul ne. loolu li xew ci réew mi dafa dépassé Cheikh Bara dafa dépassé Sonko tey jii mi ngi nii ñu internationalisé yóbbu ko bitim réew Cheikh Bara musul dama ko daan tooñ naan ko Cheikh Bara yow manifestation bu ñu euh, autorisé rek ngay dem mais bu ñu autorisé wul doo ca dem mu ne man manifestation bu ñu teree du ma ca dem ban manifestation lan mës a ne bu kenn autorisé wuñ ko ñu di ko Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye danoo mës a gis ab taalibeem taalibeem laa la bu nekk ci dëkk bi. ñu ne nit def na mbóosóor ñu ne def katu ñaawteef la ñu ne taalibi Cheikh Baara Ndiaye la tey jii ñi ngi nii téew ko lii lay wan ni ay taalibeem danoo yaru ñi ngi nii téew ko dégg ngeen taalibi Cheikh baare bu saage ci internet bi wala mu génn organiser manifestation wala dara wala mu def lii ku mën a yëkkati xaalis di financer ay nit kookay xanaa boo nekkee ci loxo yoon seen nit ñooñu ci biti dina jéema sax yëngal jéem a def dara mais lépp ñu ngi koy def ci discipline butéel la mu def la saañ bay xeeñ mooy wane ni kilifa la mais yilifa na njabootam mun na am bu leen ne woon jug leen ñu jug mais dal gi ñu wane mooy wane personnalité Cheikh Bara ci ni du nitu fitna du nitu fitna du nit koo xam ne day yee ay dialogue bi ñuy woote Cheikh Bara Pastef ànduñu ci keneen àndu ci mais fi la toog di ko défendre ak leneen ak leneen kon des fois il faut que ñu sérieux tey jii bu nee day financé ban ban lii leen gis trace tras bi wane ni kii dafa financé li wala li ban trace ci téléphone am ak kan moo jug wax loolu nanu indil nit ku wax loolu bu boobaa nag ñu xam ne Cheikh Bara moo sikk mais jël ay wax rek wax waxi aji saara ngi ñaari at ñiy jiiñ Sonko ñaari at ñu koy jiiñ est-ce que bi ñu ba ca procès lañ ko doon jiiñ dëgg la ñaata yoon lañ fi jiiñ ay nit Pape Alé fii la dugg kaso bi ñaari gendarme mu faatu fi nga gis ay journal di bind le téléphone de Pape Alé a parlé xam na loolu lu xew la léegi ci réew mi maanaam da lay jàpp jël sa téléphone jël utiliser ay nit ñu naan la téléphone ba wax Pape Alé bi mu génnee la taxaw ne sama téléphone kenn mus ko ibbi sa ba xam lu ci ne ci faatu Fulbert Sambou ak Didier Badji am ñu doon def liaison ak Pape Alé Niang beneen bi ci topp ñu ne am na téléphone Sonko yi mu jéggeen lan la ci wax Sonko ak diw Sonko ak diw mais xool lan la jur. ba léegi mënuñu indi preuve ci dara manipuler opinion bi jëm leen gëm loolu nekkul parce que léegi loolu lañ jël mooy yor sa téléphone moo tax da ut yi yi moom xanaa du wax dara yu ndaw yi yu ndaw yi yàgg yi c'est-à-dire dafa yomb nga téye nit ci bërëb ba pare di créer ay mbir di ko charger du ne nga wax ko ci koo xam ne wérul dafa war a dem faju ji na nga ko bàyyi mu faju ji ñëw toog ak njabootam loolu mu doonoon loo xam ne dañ koy ñaan duñ ko ñaan kenn ku dul njiitu réew mi le président de la république du Sénégal Cheikh Bara du seen noonu ku bëggul doon maire bëggul doon député bëggul doon sénateur bëggul doon conseiller bëggul doon lu ne lu dul toog ci keppaaram di jàngal ay taalibeem ay dongaam ñëw muy ñaan di defar ay garabam di jaay comme ni ko ñu bari di defee ci loolu la ne léegi nag sañ am gëm-gëm sañ am xalaat sañ na ni ànduma ci lii loolu mu doonoon kàddu yoo xam ne dañ koy yëkkati rek doon ko ibbee waxtaan wi parce que nit aussi boo ko xamee di dégg yenn ci moom dalay xaw a metti loolu tax dafa jekkoon ñu leeral mais aussi di ñaan ñu bàyyi ko liberté provisoire bi mu dugal ni def Pam Ndiaye Sëñ Saliou ñu def ko def ko ñeneen ñu gën dem tabaskee ji seen kër loolu lañ doon ñaan léegi beneen point bi ñu wéy ci waxtaan bi mooy mbiri Juan Branco doon mbir moo xam ne mu ma intéressé la benn di féliciter Juan di ko encourager di ko ñaanal mu wér parce que mars deux mille vingt et ak tey jii juróom fukki nit faatu ci réew mi ay nit bëgg a jóge fee naan ay force obscure ak force occulte ak lu ne ñu wax la ko ci ñoo xam ne tey jii ñun soxlawun woon ñu ñëw duñu wax mais dañuy ñëw def enquête enquête bi ñu jox ko temps parce que Juan wax na ko tey nee na enquête yi ñuy def sax ak dossiers yi mu jël ni dossiers yooyu mën na jël temps parce que du loo xam ne dañ koy pata patamee parce que tubaab danoo gëm justice ba danoo jàpp daa am yoo ko gaawantu nag Juan jël dossiers yooyu ne da ko yóbbu ci tribunaux français yi mais aussi cour pénale internationale parce que juróom fikk nit mënuñu faat ci réew ñu bari am ci ay gaañu gaañu léegi. nguur gi bëgg ñu gëmal ni moom dina ci enquête di nga enquête bi nguur gi génn korog conférence de presse bi ñu def korog maa ngi koy wax ci tàkku show defuñu ko pour ñun mais dañ koy def pour wax ak waa bitim réew pour xamal leen ni lii la parce que li jëm ci mbiri enquête yooyu bu dee nii xam enquête yooyu nan nga ko mën a suulee maanaam yi am cour pénal ak yooyu mooy boo xasee ba ibbi enquête sa réew rek comme li xew Sénégal ñu commencé enquête fii ne ibbi nañ rek day tax waa cour du mën a def seen liggéey bi jeexul kon ñoom lu mu gën a yéex mais xuwaan comprendre na leen mu ngi naan leen affaire yi mën na yàgg mën na jël temps kon jaru yàkkamti sàcc bu dul rëcc jarut yàq nelaw mu jëmee ko ci président de la république jëmee ko ci général Moussa Fall mais jëmee ko ci Antoine pour le cas de Antoine di ñu intéressé mooy le ministre de l' intérieur mais fii ministre de l' bu ne am na fi gis nañu euh, mbay Ndiaye nekk def ministre de l' intérieur ci jamono yi Macky gis nañu euh, le général Pathé Seck ah, waa yaakaar naa y aussi Abdoulaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye Antoine bi mu nekkee ministre de l'intérieur ak tey ji ci ñaari at lay toll mais ñaari at wala ñetti at yooyu wala jege na ñetti at mais ñaari at la mais boo jàngatee ni bu nu xaymaa lu jege ci juróom fukki nit ñàkk nañ seen bakkan ci ay manifestation ci ay defante kenn waxul diw moo leen faat wala kee mais nag loolu lu ñu war leeral la parce que Sénégal nit ñi duñ ay weñ ba heure bu ñu xëy rek di faatu bu faatoo rek ñu jël lépp teg na le ñëw gëmloo ñu force occulte obscure wala leneen ak leneen fi lan fi waxoon mars 2021 ni ibbi nan ab commission d'enquête maître Sidiki Kaba ñëw gëmal ñu ko mais commission boobu ba tey jii gisuñu benn jéego bu mu def pour leeral mars 2021 ña faatu woon tey jii lu toll ci fanweeri nit faatuwaat mais loolu duñ ko bàyyi parce que adduna bi tollootul fi ngay tëjee sa réew di def lu la neex te nag tombe moo waral ay gaaf kon tey jii ñi ngi ciy tudd il faut que ñu tudd leen ci ndax ci seen jamono la lii xewee léegi nag ñi ngi naan force occulte wala ñu naan ay opposants yoo xam ne ñoo jóge recruter ay mercenaires wala le mais loolu ñun xamuñu ci dara xamuñu ko rey xamuñu ko santaane mais liy xawaan def lu tax mu am solo mooy bu ñu demee ba egg ci enquête internationale boobu le mais enquête boobu mooy wan ne ni. ñii ñoo def li ñii ñoo santaane li ngir bu ëllëgee buñ falee ñeneen xamal lii lu tax mu am solo mooy buñ falee ñeneen ñeneen ñooñ duñ sañ def lu leen neex parce que Sénégal li ko yàq mooy impunité da ngay def lu la neex wax li la neex ba génn ci mais loolu mënatul am kon dañuy féliciter Antoine kii di Juan di ko féliciter bu baax a baax taxawaay bi mu am am solo Sénégal yëpp ànd ci moom parce que sànq maa ngi dégg Sandiogou di ko wax mais mu am solo parce que dossier yi ko jox sakkan na bari na mais dafa def tri tri tri ci dossier yooyu tri boobu mu def nag moo ko may mu dem ba am quatre cent sept lu toll ci sept cent ay éléments éléments yooyu mu fas yéene ko yóbbu ci yoon ngir ñu càmbar ko topp ko ngir xool fan la wànnent di mujj ak i gëtam parce que dafay yomb. lu xew rek jàll ci réew mi lu xew rek jàll lu xew rek jàll kenn du lijjanti lan moo xew maanaam yow boo jiitee da ngay jàpp ni buur nga parce que da nga jàpp ni yaa takk der yi yaa yor police yaa yor gendarmerie mais yaa yor ba sax da nga gëm ni fi nga ko war a xooloo lay xool léegi nag li xwaan def dañ koy rafetlu mais dañ ci am gàcce ndaxte bu doon suñu justice su réew mi ngi def li mu war a def di topp dossier yi mais aussi tamit di ci taxaw nu war a taxawee soxlawul un Juan Branco di jugee bitim réew ñëw di dugg ci loo xam ne mbiri Sénégal la mais nag comme pexe amul moo tax ñu mën a jàpp ci ki mel ne Juan parce que fii am nañ fi ay avocats yu baax ay maître Assane Dioma Ndiaye xam nañ fi ay maître Boucounta Diallo Sénégal dafa bëri ay kàngam ay maître Mame Adama Guèye ñoo xam ne ci wàllu droit de l'homme ba ci maître Sidiki kabaa bi jiite fi FIDH jiite fi kuréel yu bëri tey jii. adduna fu yu mel ni mësaan a xew lu xawaan mii di def moom moom la doon def parce que tey jii dafa nekk ci système bi moo tax kenn mënatu ko dégg ci lu mel noonu mais kenn mënatu ko gis ba mu sax moom mën a toog moom di défendre gouvernement Sénégal ci loo xam ne salfaañe la ci àq ak yelleefi doomi aadama conviction ak principe yi mu amoon démb yëpp moom mettre ci kawa mu dem jël ko feneen ku wàcc sa ànd nag ànd boo dem fekk borom toog fa léegi nag ñàkk a def seen liggéey ñoom moo indi ku mel ne Juan Branco mën a ñëw taxaw Juan li mu wax lu tax mu am solo mu ne du politique amul benn agenda électoral moom wala nit ki muy jàppale pour mu falu wala du fale ko mais daf ci am ay mbir yoo xam ne ay principe la ci àddina wax bi mu wax nag bu am solo mooy lépp da ko delloo Sénégalais yi da ko delloo Sénégalais yi mooy Sénégalais yi yéen seen destin ak li ngeen bëgg parce que li may def man mën naa am mën naa am yéene def ko Juan loolu la wax mais il faut que jàpp ci taxaw ci jàppale ko ci. ngir lii mën a mat te jàppale mënta weesu ba mu ne yónnee leen ma ay éléments ñu yónnee ko ay éléments éléments yoo tey bi mu ci jotee la xëy def lii mais ëllëg on dafa soxla ay témoins ay témoins yoo xam ne dañuy témoigner contre ñi mu def plainte bi nii ngir ñu mën a leeral mbir mi parce que lii amoon du amaat loolu Macky Sall da koy wax te mën gëm naa ko mais ñun liñ bëgg mooy li amoon du amaat mooy bëggatuñu manifestation boo xam ne dañuy faat ay nit bëggatunu manifestation boo xam ne dañuy jàpp ay nit tëj ci kaso bi te teguñu ko fenn bëggatunu ay nit ñuy manifester ñu gis ay milice wala ay nervi yu yor ngànnaay ba police dinu wan vidéo dinu joxoñ naan waa jaa ngi ne le te waroon ko dem jàppi yooyu mënatul ne kon tey jii tëju ci sa dëkk di def lu la neex loolu nax sa bopp la di nga xwaan nee na lu tax waxul sax ci Antoine wala kii di Moussa Fall wala Macky Sall waaye dem na ba ne génocide bu Rwanda génocide bi amoon Rwanda maanaam bari na ci ñoo xam ne sax tey jii ñu ngi leen di topp ci yoon du question danoo rayon de mais kàddu yéen doon yëkkati ba tudd rajo Milkolin mu ne kàddu yéen doon yëkkati di puus nit ñi ngir ñuy faat te fii dégg nañ fi président da da ngaa war a rey buur day rey di tëj gis nañ fi bu quatre-vingt-dix pour cent sénégalais yi deewoon buñ deewee tamit te te buñ deewee dix pour cent yi des garaawul pour ñu mën a régler affaire Sonko yooyu yëpp dégg nañ ko dégg nañ fi ay mbir yi nanu faat Sonko yooyu yëpp dégg nañ ko ji nga ne xeetu kàddu yooyu xuwaan sax nee na ñooñu doon wax kàddu yooyu xam na ñooñu wàcc ñu ci bi xeex waaye ñooñu ëllëg sax mën na leen topp ci wàllu yoon kon tey ji bu dee ñàkk xam moo leen jaraloon di wax yenn wax yi tey ji xuwaan xamal na leen te lii lu ñu war a topp la ba mu sës leeral ko ba mu leer pour que ëllëg lu amoon du amati même bu dul nguuru Macky Sall nguur gu mën a nekkaat nguur gu fi mën a jaaraat doo fi ñëwati di def lu la neex pourquoi nguuru Abdoulaye Wade am na lu fi xewoon ba 11 mort am en 2011 mais am na ay atte Mamadou Diop atte bi baax na baaxul mu umay au moins état Sénégal fexe na ba mu am procès procès Mamadou Diop am na fi gis nañ fi ay étudiants yu faatoon am na procès mais pourquoi ak régime bi ay nit di faatu kenn du ci maanaam du mujj fenn loolu problème la. jamono ji ngay bañ a doo leen sax jaale doo leen sax massawu dem bitim réew di jaale ji lu ne nga dugg ci loolu nag Juan Branco nee na loolu day dakk te sénégalais yi ñoo ko ci mën a jàppale comme da doon wax tubaab il fallait que ma leeral waxi Juan te nag nee na politique tax ko a jóg nekkul ci benn agenda électoral mais lii xew senegal il faut ñu am courage yu taxaw jéebaane senegal jéebaane suñu njiit yi ngir que lii bañ a amati. beneen point bu ñu bëgg waxtaanee mooy lu am solo mooy mbiri candidature bu président Macky Sall mu doon candidature boo xam ne démb Macky Sall dem na ci tubaab yi wax ci benn manque de respect bi mooy jéggi Sénégal dem bitim réew di fa waxee ci loo xam ne mbiri Sénégal la mu doon sunu njiitu réew mais man déggin wi ci nit ñi am bu lu bari man dégguma ko man dama jàpp ni ki doon wax démb du njiitu réew Sénégal moo doon wax moom président Macky Sall du njiitu réew senegal moo doon wax maanaam secretaire général parti bii di APR moo doon wax ndaxte boo xoolee fa mu doon waxee ay militant la toogal mais aussi waxu nitu politique moo doon wax mais ab njiitu réew du waxee noonu wax na sax ba def loo xam ne tàmm na ko mooy di tëkkuwaateeg lu ne mu dugg ci. léegi nag dafa dëggal kàddu yi Ousmane Sonko moom président Macky Sall dem boo ko déggee mi wax. mooy dinañ fi toog ba sunu nguur gi ak liggéey ñu ci def wéyal ko ba heure bu ñu neexee ndaxte après 2024 dañ fi war a continuer di ne loolu dinaa ci dikk ak mbiri Karim Wade ak yooyu mais fii il faut que nga comprendre ni secretaire général partie moo doon wax mais du président parce que Macky li xew ci réew mi yëpp ba mu xew ak léegi taxul ci réew mi wax ci taxul ci réew mi wax ci dem ba bitim réew di ko fa waxee loolu nag tontu la ci ña ko doon yuuxu ca portigal man dama jàpp ne ñooñu la doon tontu pour wal leen ni am na mbooloo te diaspora bi gëm nañ ma mais aussi di rassurer ay militants di dalal seen xel parce que te jamono yi nag on peut dire que moral bi baaxul ci côté président de la république moral bi baaxul ci côté président de la république parce li fi xew yëpp boo xoolee dialogue bi bi ñu koy ibbi ni mu fëggee dënnam da ngeen may ñaan ci

loolu la discours Macky Sall bi pour galvaniser ces troupes la doo déggee mi ngi naan la Benno Bokk Yaakaar mooy coalition boo xam ne depuis onze ans mi ngi fi tasul dara liwul te coalition bu day continuer di fi ne parce que bari na ci loo xam ne xew na ci diggante bi parce que boo xoolee Macky Sall depuis 2012 élection bu ñëw day mel ne montagne glace day gën di seey parti bi coalition bi yu bari dafa wàññeeku impopularité bi dafa am parce que Macky Sall dafa jàkkaarlu peuple am parce que da xool képp ku Macky Sall di duma ci réew mi sax waa réew mi dajale xaalis jox la képp ku Macky Sall tëj waa réew mi jug na ko bu ko tëj bu bu ju mujj rek mooy wal fajri loolu mooy wane ni impopularité bi mu dàqee capitaine Touré gi Marius Sagna ba ci Ousmane Sonko mi tey jii fitnaal gi mu ko fitnaal moo tax askan wi taxu Ousmane Sonko pour man nag yooyu mu dund yëpp ba xam ne. jamono yi bayre bi wàññeeku na mais soppi gi ko sénégalais soppoon wàññeeku na il fallait que mu ñëw joxaat doole partem joxaat doole ay militant am gëm leen maa ngi fi même bu fi nekkul parce que Macky day politique loolu tax man ba léegi démb gisuma la président de la république maa ngi doon gis benn secrétaire général du parti jiite ab coalition benn doo leen gëmal ni gars yi amul yox yox yi amul dellu ginnaaw amul daw général bi mi ngi nii maa ngi nii taxaw beneen kàddu bi may dégg ci président Macky Sall mu wax ko mu ne dinañ continuer di fi ne continuer di fi ne boobu nag loolu moom du coobareem mais coobaree askan wi lay doon mais boo déggee continuer di fi mun nga jàngat ni dafa jàpp ni libéraux yi mun na am moom moo dul candidat jàpp nañ moom mënu fi toog di fi ne parce que peese na boppam ba xam fu mu toll mais li Ablaye Wade waxoon ni libéraux yi dinañ fi dem cinquante ans dafa mel na ci logique boobu la ne. dafa mel ni ci logique boobu la ne parce que boo gisee logique gu Karim Wade man Khalifa Sall dama koy écarter je ne je parler de lui parce que pour man gestu moo ko yóbbaale sikkim la rek mais pour man li bari na li ñuy liggéey Karim Wade la ñu koy liggéeyal parce que c'est la famille libérale boo xoolee li ñu defal Idrissa Seck yóbbu ko conseil jekk-jekkal ko waat ko ci opposition bi jël jëli Karim Wade article vingt huit ak vingt neuf ñu fas yéene ko dindi léegi fexe ba réviser son procès alors que réviser procès benn day jël xaalis. day jël temps mais aussi gàcce la ci état wu Sénégal mais état wu Sénégal bu mënee gàcceel boppam ci kanamu Karim Wade ça veut dire que ñoom ñi ngi ci logique boo xam ne ñun ñii xamuñu ko mais logique bi mooy per fexe ba la famille libérale gën fee yàgg ñoom pour man seen logique loolu la même bu dul sax Macky moo fi toogaat mais ki fi toogaat doon libéraux te jeu boobu ñi ngi ci jeu boobu ñi ngi fi loolu nag tey jii. pour man moo indi kàddu dinañ ko toogaat après 2024 parce que moment bi mu ko waxee bi ñu xëyee si suba lan gis ci journaux yi ñu ne Karim Wade dindi nañ ko lépp mais Karim Wade li ñu ko ràccalee sax ràccaluñ ko Khalifa mais Khalifa candidature yóbbaale ma la maanaam il faut que ñu yóbbaale ko géew parce que boo xoolee ay niti xalifa boo déggee PDS troisième mandat ñoom mus mosuñu ci wax ay troisième candidature PDS mosuñu ci wax mais xalifa ñoom seen principe mooy Macky warul am troisième mandat te tey jii féddaliwaat nañ ko. léegi nag ñii ñëpp tey jii duñ mbokki makki Sall waaye buñ doon ay mbokkam ni aadama Faye ndax mbokk ndey koy jur te nag Adama Faye ak Marème Faye ñoo bokk ndey baay te nag ndijaay moo di yaay comme Adama Faye ñi naan Macky la bëgg mais man pour man Marème Faye la bëgg ak njabootam parce que un président bu fi jugee topp ko day jafe mais tey jii njabootu Marème Faye te bëgg na ay jarbaatam ëllëg ñu leen di tàccu mais bëgg na ay jarbaatam ñu leen di kañ. bëgg na ay jarbaatam ñu leen di kañ loolu il fallait que moom mu wax ko te du la première fois mu wax jëm ci lool parce que yi dafa dem ci sëriñ si waxoon ni ñaar ca lay yem moo tax Adama Faye tuddaat sëriñ si na leen sëriñ sa mu demoon tudd fa ñaar bu fa demaatee naan ñett lan lañ koy wax loolu lay waxi Adama Faye mais sëriñ si muy waxal ci candidature bu président Macky Sall candidature boobu li mu ko mën a yàqal dafa bari te histoire nit a ciy dugal boppam nit a ciy génne boppam te Macky Sall dafa am occasion dugg ci histoire mooy ñaari mandat laa waxoon am naa ko maay premier président boo xam ne tey jii maay organiser élection te du ma ci bokk loolu mun ko jural lu bari ci àddina mais tey jii bu demee ci élection ci risque lay demee ci risque lay demee parce que bu bu demee ñàkk élection yi ak li xew ci réew mi yëpp ak yi Juan Branco dugal ak yooyu mais problème mën na am kon Adama Faye bëgg na Macky mais Marème la bëgg ak njabootu Marème te Adama quoi pourquoi kàddoom jara bàyyi xel ci Macky Sall ji nga bi ñuy dugg ci procès Ousmane Sonko Adama fay ci leen woon procès bi du dem yeneen a ngi fàttali kàddu googu mën a procès bi waruñu ci dugg affaire yu jigéen waruñu ko utiliser di écarter ay candidats nan bàyyi ñëpp bopp bu ma sañoon mbiri aji Sarr ñu teg ko ci suuf ñaan ko président Macky Sall solennellement Adama fay moo waxoon loolu. tey jii buñ ko déglu woon est-ce que cinquante morts yi Juan Branco naan day yóbbu Macky Sall ci cour pénal dina am kon Macky nay déglu Adama Faye tey jii la mu ko doon bañal ci mbiri Adji Sarr ba nu dugg ci gudde gi loolu la koy bañalaat ci candidature nag candidature mun na jur leneen te jàmm rek lañ ci bëgg kon dama jàpp ni danoo toll ci moment boo xam ne ci sunu histoire réew mooy ku ne dafa war a jël responsabilité am wax dëgg taxul dee wax dëgg taxul dee mais ki ne ku ne jël responsabilité am li ñu dund ay cinquante morts yu ñu weesu ak li ñu dund euh, en 2011 bëgguñu ko dundaat kon lépp loo xam dañuy dugal ci gutta képp ku war a wax na nga war a wax képp ku war a taxaw taxawal képp ku war na déet na wane déet loolu lañuy xaar lii nag bu ñu ko defee pour man mooy contre Ousmane Sonko dinaa ci dikkaat ci Sonko ak impact ak conséquences yi muy am yépp ci moom. mais lii dafa jekkoon pour ñu wax ci barricade bi ñu dind ko mu dem tabaski ak njabootum ak doomam ñaani ndéwénal complot yi ñu bàyyi ko élection yi ñu war a bokk yëpp bokk Sonko dafa war a bokk parce que ay nit mu ñu leen jiiñ ay cent et trente huit milliards yoo xam ne Karim Wade da ko war a jox trésor xalifa Sall ñu koy topp ci yoon ci mbiri xaalis waxuñu ñoo def de mais ñooñu tey jii ñu mën leen a lewal ci ab dialogue politique ni ko Mimi Touré waxee ne dialogue bi dañ ko defoon juste surtout dañ ko defoon kase pour. valider la candidature de Karim Wade dil la entre ak Macky Sall mais la muy waxoon neexut a weddi parce que li mu jur tey ji dafa dëggal kàddu yi Mimi Touré dafa dëggal kàddu yi Mimi Touré kon di gërëm ñëpp di leen sant euh, leen rek moo rafetul ay nit yi nuy toppee alalu réew mi ñun leen na nekk candidat kii ñu koy toppee corruption de la jeunesse ak diffamation di Ousmane Sonko ñu ne warul bokk maanaam loolu bu ko xel nangoo sax ngoro da koy bañ di gërëm baax El Hadji Modou Diouf euh, Ablaye Topp di gërëm ñëpp di leen sant di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax ni di leen wéy dinu seetaan ci solution info TV euh, di gërëm ñëpp di leen euh, sant di leen wax ni ngeen partagé buñ fi waxee lu ëpp tey ñi ngi jégalu jubluwun ci wax lu ëpp di ñaanal ñëpp jàmm kon jeudi prochain Korité la bonne fête à tout le monde.